abonnez-vous ciao le mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ñaanal di sàkku seen ñaan yéen ñu déglu chronique bi ci xel mu sell di ko taataan ci xel bu nax waaw dañu ma laaj na ma Sonko justice Sénégal daf ko woo waaye woyu juul dafut lu dul yore balam di traîner ci koñ bi di football ak reetaan ma ne leen waaw lan moo tax Sonko def loolu maanaam ñi koy sikki ñoom xamuñ lan mooy yoon sonkoo yoon may na ko justice woo ko mu bañ a dem ay avocat teewal ka fa loolu yoon moo ko may Ousmane Sonko ñi nga xam ne na moom seen wax tegewul ci xam-xam tegewul ci lu leer xëy na ay nit leen yoo xam ne bëgguñ jàmm ci réew mi ñoom rek ñoo fi nekk naan Ousmane sonkoo daa war a dem woy ji daa war a dem woy ji Ousmane Sonko kan la war a war woy ji ak lan lay woyu ji est-ce que duñ xool loolu ba pare tamit mais Mame Mbaye Niang mi nga xam ne maanaam rapport boobu noonu mu plaide mais réew mi man yéemu naa ci réew mi mais réew moo xam ne maanaam kii sàcc mooy dem di plainte kii dénoncé loolu ban réew la yow mi sàcc yaay dem di plainte kii dénoncé mané mam bay mbay ñaa sa bop mam bay mbay xama di nga rew nga da ngay nopi nak ñu sutura la noppi wuloo ñu wax la sa dembu sonko du sa morom tay sonko du sa morom suba politique ba len bolé waye sonko sa bay Macky Sall la am lu mi wax kon mam bay den dañ bëgg nga tecc sa gemmeñ tecc sa gat yaangi wax bobu ba waye len rek lañ la xamal moy Abonnez-vous, ciao le Sénégal